alhamdulilahi rabil alamin wa sallallahu wa sallam wa rahima wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabi ajmain di sant suñ borom subhanahu wa taala ci dajeeg yéen ci barab bu màgg bi ci bis bu màgg bi euh, thème bi dafa ñëw ci waxtum muy tawxiidul kalima lislaam li ko tax a jóg mooy loolu defar aw xeet woo xam ne dana benn le seeni pas-pas benn le seeni jikko lañuy ñu gisee ne lii mooy li baax ñoom ñëpp koy bokk la ñu gisee ne lii mooy sofaan ñoom ñëpp koy bokk noonu it lay benn lay encore seen i jëmuwaay ak seen i xalaatiin ko defee kon suñu ñëwee fekk ñu tànn thème boobu dañ naan ñëw na ci waxtu particul plus particulièrement nag ci moment boo xam ne lii jóg pour euh, divise xeet bi ci biir réew mi ak biti réew mi ay doole yu rëy a rëy rëy làqu ci seen gannaaw yaakaar naa loolu ëmpul benn journaliste ëmpul itam kenn koo xam ne xelaatkat la te fii di barab boo xam ne euh, man damay wax ne Koki dëgg la benn parti la ci senegal waaye suñ borom da ko jox beneen particularité mooy àdduna ko bokk kon buñ fi dajalee àdduna euh, wax ak ñoom ci luy benn la xeet bi luy benn la kàddu xeet bi fii bokk na ci bari yi gën a porté pour loolu te xeet wi suñu bennoo mën nañ lépp suñu bennoo wul nag mënuñ dara. waaw ndax euh, ci loolu si Amadou Seye Lo moo sanc loolu. Mhm. Euh, loolu moom teeloon na ko comprendre ba ci daara ji moom. Mhm. Euh, kennal suñu borom rek moo fi amoon kenn xamul kii fii la jógee wala kii fii la jógee. Mhm. moom li ko ñoroon ci doomu aadama rek ngir nekk jullit pour dëggal li nga wax. muy lu wér a wér ndax ñun fii lañ dalee basin mim nekk ci loxoom ba mokkale fi alxuraan saxaat ci jàng yi di téele lu ñaari at lii nga wax ci moom moom la adduna yëpp xam ci moom moo tax it damay faral di wax ne ku jógee ci daara yi si Ahmad Saxiir Lo yal na yàlla yokk ay leeram doo mën a fanatique doo mën a nekk kuy par da dangay nekk nit koo xam ne ku universel ngay doon ndax formation boobu la ñuy joxe ci daara ci kon alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ bi bennoo ci moment bi ñu toll mooy sunu avantage ndax jullit ñi fii ci Sénégal maa ngi koy wax léegi rek ci ñoom xaadim bi laan may leen bu ñu bennoo woon tey ba nekk benn bopp nga xam ne bu nee jóg leen ñu jóg def leen ñu def problème wu lislaam moom jeex na ma joxe ci misaal rek 2000 francs yi nga xam ne moom la ñuy wecc ko carte membre yi fii ci kokki jullit ñi actuellement ñu ngi ci 15 millions 15 euh, millions kenn ku nekk bu joxee deux deux mille deux mille francs lu mu lay jox lu mu bon bon 30 milliards 30 milliards daara ji mën na ci dund ren ba déwén dundal ci mbooleem daara yi soqee ko fii taxawal ci sax ay projet de société yoo xam ne incha allahu ëllëg dafay nekk li saalihil umma al islamiyya bu ko defee kon yéen ñi yor média bi. yaakaar naa waxtaan yu mel nii ak njëriñ yi nekk ci bennoo lu ngeen gën a man ci encouragé ko xam nañ ne xam ngeen bu baax a baax a baax avantage yi ci nekk waaye lu ngeen ko gën a mën a véhiculer message bi dugg ci biir umma bi ba xam ne bennoo lii la leen di may dañ lañ cee gën a jërëjëfal jërëjëf man jàpp naa ne ku ñëw ba déglu waxtaan yi fii jàll dañu ñëw ñun ñëpp pour pour tibb si jëriñu si bu ñu delloo nag dañu war a nekk ay relais nekk ñoo xam ne dañuy véhiculer message bi ñu fi jëlee bu boobaa incha allah mu mën a nekk campagne de sensibilisation bu gën a yaatu bu gën a matale. waaw waaye léegi am fan ci actualité muy jullit yi xam dañ doon muuru di jàng ci école euh, ñu xaw leen a mën a xatal foofa. Mhm. léegi lan moo ci taxawaay jullit que imaam loolu wanewul ne jullit yi seen ñàkk bennoo dafa ci euh, exactement feeñ na ci te itam wax naa ko keroog ci géejawaay ma ne boo gisee ñoom ñu ñeme loolu c'est parce que xam nañ ne jullit ñu nekkuñ genn kàddu mbir mi nañ ci gën a bàyyi xel du problème mu chrétien yi. ak musulman yi déedéet problème mu franc-maçonnerie la ak diina fi mu ne ñaari diina yi lañ bëgg a fénqale muy chrétiens yi ak musulman yi loolu nag buñ leen ko nangul ndax actuellement Vatican ak boppam dafa rëcc ci chrétiens yi mu ngi ci loxol franc-maçonnerie mondiale damay yeble rek ci benn conférence boo xam ne ki ko def mooy euh, Johan Livernet am na benn conférence ndax am catholique la sax waaye am na benn euh, conférence bu mu def di wane ne sunu Vatican actuellement mu ngi ci loxo la franc-maçonnerie mondiale moo tax décision yu mel nii France moo nekk ca bopp ba franc-maçonnerie moo nekk ca gannaaw ba. mais est-ce que loolu imaam la ci yéen ngeen gën a mànkoo gën a loo dëgg dëgg mën a jàngal seen i doom saa ñuy dem feneen loolu loolu tey mooy question bi euh, du ma wax ne gàcce la gaa waaye dama naan manque d'organisation la ñu dem ba jullit ñi amuñ ay écoles yoo xam ne modèle la ñuy doon doomi jullit ñi mën fay jàngee. comme nii ma gisee sëñ Mountakha Mbacké ak ñoom sëñ Abdou Lahad commencé woon ko ak yeneen ñu bëree bëree bëree bëri ci réew mi fa tabarakallah taxawal ay université islamique yoo xam ne lépp lu doomi jullit soxla ci primaire ba étude supérieure dañ ko fu mën a fekk loolu moom dañ ci encouragé kilifa yi di ci encouragé waat kilifa yi ci woote waat encore ci seen biir ndax jullit ñi sëñ bi bennoo nañ ba noppi dama koy wax toujours nañ ta jullit boo gis rek mu ngi ci gannaawub sëriñ wala mu nekk ci gannaaw benn dirigeant ci benn mouvement islamique kon lu des ñooñu ñoo war a organiser wu boo ba jeex na bu boobaa lépp luñ bëgg ci réew mi dana fi am luñ fi bëgg a dindi dana fi dëñ yu mel ni dootuñu dal njàngale mag ñi tamit loolu la. exactement Sëriñ Tuubaa mi wax na wala tu'addu mar'aykum faaw yuhum laa ilaaha illallah kon doo comprendre du ndeke mag ñi ñoom. Mhm. bu ñu dikkee dañoo benn lay jullit. exactement ah, tarix yi dara boole mais dawul benn la. wa kullu wirdin wa kullu wirdin yuridu bihaadal wala yaxiida sawaan intamaa ilal jilaani aw intamaa li ahmad tijaani aw li siwaahuma min al aktaab is kulluhum qatan ala sawaab ñoom seen liggéey lii la woon yal na ko yàlla dëgg dëggal yal nañu suñu borom subhanahu wa taala may ñu mën a concrétiser liggéeyu mag ñi sottal ko seen gannaaw ci nam gën a matee ak nam gën a rafetee jërë ngeen fa jazakumullahu xayran